Euh, ca Sen News daal di euh, bind duppee ko une information de dernière minute euh, qui vient d'être relayée en effet le chroniqueur du groupe euh, des médias Ahmed Ndoye a été interpellé euh, ceci faisait suite à la conférence de presse animée ce jeudi 24 octobre 2024 par Cheikh Yérim Seck euh, qui a lancé son mouvement C221 donc mu nekk xibaar bi nga xam ni euh, sunu confrère yi nekk fële ca Sene News ñoo ko daal di euh, bind di ñu xamal ni rek ginnaaw conférence de presse bi Cheikh Yérim Seck euh, amaloon ci benn hôtel boobule mouvement mu duppee ko C221 ginnaaw boobule conférence de presse bu mu daal di jeexee Sene daal di teg loxo chroniqueur bi nekk fële ca D-Media sent TV bu Bougane Gueye Dany xamaguñu nag ana lan moo tax daal di koy tegandi loxo waaye du ñàkk rek ci kanam tuuti dinañ daal di euh, dikkaat pour euh, baaxee leen lan rek moo tax moom Ameth Ndoye nekk li nga xam ne nag moo di chroniqueur ñu euh, daal di koy teg li nga xam ne nag moo di loxo ci boobule conférence de presse ba tey ki nga xam ne nag moo di Cheikh Yérim Seck Euh, mi ngi doon annoncé euh, que ñi ngi si euh, ab liggéey pour rek daal di porter li nga xam ne nag moo di ab plainte contre la police nationale waaye nag détails yi moom journaliste bi Cheikh Yérim joteegu jotagu ko daal di fësal bu baax a baax pour wax nu an lan rek moo tax nu fas yéene porte plainte contre li nga xam ne nag moo di la police nationale en tout cas ci ay xibaar yu nu sunu naataangoo yi daal di baaxee ñu ngi nuy xamal ni moom Ameth Ndoye ginnaaw boobale conférence Euh, bu mu daal di euh, buuree euh, seen ka daal di teg li nga xam ne nag moo moo di loxo du ñàkk rek dinañ si dikkaat bu baax a baax pour gën ko yaatal waaye tamit pour gën leen baaxee ana lan moo tax nu daal di teg loxo ki nga xam ne nag moo di chroniqueur bile alors nu wéyal ba tey ci li nga xam ne nag moo di bile wax sa xalaat fépp fooy mën a nekk moo xam ci réew mi wala ca bitim réew 77 227 12 12 rek ngay def pour daal di joxe li nga xam ne nag moo di sa gis-gis ci information bi. nga xam ne ah, moom naa leen ah, partage léegi muy arrestation ki nga xam ne nag moo di Ahmed Ndoye nekk chroniqueur fële ah, ca seen TV ginnaaw Cheikh Yérim Seck mu doon lancé li nga xam ne nag moo di mouvement bu bees duppee ko mouvement C221 ginnaaw loolu seen teg loxo ki nga xam ne nag moo di Ahmed Ndoye mën ngeen si dikk joxe si li nga xam ne nag moo di seen gis-gis nomination tamit ki nga xam ni Euh, mooy euh, nomination wu euh, ki nga xam ni moo di Samba Ndiaye comme PCA bu SN HLM loolu jur li nga xam ne nag moo di ab coow finalement sax ndaw yi bokk ci parti bi di Pastef daal di lancé li nga xam ne nag moo di ab pétition pour rek nu daal di. teggi tekki li nga xam ne nag moo di ndombal tànk mën ngeen si dikk bu baax a baax nu jël ki nekk si ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum alors mu uh, mel nii kooku kooku asalaamaaleykum. alors mu mel ni kooku dem na dina uh, dikkaat léegi-léegi au 77 227 12 12 77 227 12 12 rek daal di uh, joxe li nga xam ne nag moo di gis-gisam asalaamaaleykum.